Ahmed Khalifa wax la baridin wala karimin ah wala karimin waaw <laughs> waaw dialogue bi moom daf daf ñuy won ñun ñooy ñan rek mhm. eh, day wone day wone benn image ci sénégalais yi mhm. wala ñenn ci sénégalais yi day wone day day wone image xam nga ñun dañuy won ne ñun mënuñoo wax ci temps mënuñoo wax ci thème waaw feeñ na ci ah. parce que euh, dem naa sax ba fi ma ko doon seetaane ma ne ñi jarul woon joxe temps quoi waaw mënuñoo wax ci temps ñun day mel ni ki ñëw yëgul woon ne appal nañ ko ay minutes waaw en même mooy benn beneen bi ci des mooy mënuñoo wax ci thème ñun ne sise sàngam la ñuy wax nit ñu wax ci ñun dañoo mën a def hors sujet yoo xam ne tegul fenn ci ngénte ngay ñëw am tudd mhm. ñuy waxtaane jox kenn kàddu muy nett li borom ngént li ak xarafam mm-hmm. naan moog diw ñoo bokkoon néegub góor mm-hmm. nangam nangam ba ba sama yaay di ñëw ci kër gi di wax yoo xamante ne voilà mm-hmm. kenn soxlawul yooyu loolu <laughs> ñun la yàlla moo ñu noonu naturellement président de la république defe naa dialogue bi ba mu koy woote mbirum élection yi la wax ne moo tax mu di ko woote ban date lañ ko war a def mais pourtant foofu euh, oustaz man dafa am benn seetlu bu ma fa def muy président bi ñu ko laajee ci datu élection daf na ci dialogue bi lañ koy. waaw décider léegi moo tax ma yaakaar bi mu demee ba ci dialogue bi ci premier discours bi mu njëkk wax mu ne fii wax nekkul loo xamante ni lu ñuy appliqué la. waaw mais parce que parce que mënuñ koo appliqué. bi <laughs> naa. biñ ci parce ñu ngi delloowaat conseil buñ conseil conseil mais mais nag au moins président moom mi ngi joué ak temps bi. mi ngi joué ak temps bi. Mhm. da woote lu mel ne consensus. te fekk li nga nar rek nga bëgg mu jaar ci ñoom pour jàll. ok loolu laa ci jàngatee. mais su ma ñëwaatee ci discours yi. Mhm. man tey su ma fa dem te war a wax danaa laaj bu ma laajee ñaata minute laay wax wala li may wax ba noppi maanaam ci lan ngeen bëgg ñu wax ci mhm. lan mooy lan mooy laaj bi buñ la ko waxee nga wax ci loolu euh, waaye daal li ma ciy jàngate te nga wax ko léegi mhm. man bu dee ki nga tudd noonu mhm. euh, ci jëmmam moom awma lu ma ciy wax ndax yaakaar naa sénégalais yi ñi nga xam ne xàmmee nañ xàmmee nañ defe naa ñu baree bari sax comédien lañ koy jàppe wala ñuy reetaan na ma baal parce que ñun ci yarub daara ku la mat way jur doo na maa ñoom laa bokk te am am nañ sañ-sañu na loo xam ne fo ñun réew mi dañoo am nañ ma baal de mag ñoo xam ne ba léegi dañuy fo ñoom dañuy caaxaan dañuy foyee xeli nit ñi waaye fo li muy garaaw garaaw garaaw garaaw foyee alquran moo ko gën a garaaw ok borom bi subxanahu wa taala kenn du fo ci moom dafa waxoon ne ndax ci aaye yàlla yi ak waxi yonent bi ci ngeen di fo. xadd kafartum baada koom la ca teg. weddi ngeen yàlla. même bu fekkente ne gëmoon ngeen. da a war a yees lu ji. gis nga baat bi nga wax léegi baatu karim rek a ci nekk karim. waaw mm-hmm. Karim goo xam ne boo ko doon tekki sax kon da naan Karim du bokk. foofu alxuraan di wax sawara lay misaal. Mm-hmm, mm-hmm. sawara woo xam ne ma nga tàng jër am saxaar su metti ami jafe-jafe. ci biir sawaw raw moomee. di di imaginer sawara. voilà ci biir sawara woowee. <laughs> ña nga xam ne ñoo fa nekk. laa baaridin wala karimin. ab sedd amu fa. daray bànneex amu fa daray tedd nga amu fa. amu fa wala karim laa la kon laa laa nga xam ne kon da koo dàq nga xam ne kon li war a wax kon mooy wala karim in <laughs> bu fekkoon moom moom que euh, mais day baax it def ci leeral gi parce que jëru euh, ko li tax leeral gi mooy daf ci am ñoo xam ne da ngay dégg ñooy la borom xam-xam la buy waxee fu nit ñi dégg wala borom xam-xam la boo xam ne day foowee xam-xam mais borom xam-xam boo waxeewut fi nit ñi dégg waxut ak nit ñi sax man daal kuy wax fi ma déggul dama la dul jéem a déglu am naa ko ma wax sànq ne ko diine ju bees wàccut yonent bi bees ñëwut jibril ëndeetut ay orientation la fi nekkoon leer na nañ la nga jàppoon ba jàpp ca bul xëy suba dajee kenn mu xëyal bëgg la koo bàyyiloo ci maali for loolu jëmut kër gis nga Seex Sidaaji Maalik radiyallahu anhu bi muy bind xilaasu zahab di nett li bay nett li yonent bi bi mu ñëwee Taïf dafa wax ne la ko dof ya def duma ko nett li maanaam amul temps wu nett li jëfi dof laa qaamina sufaha maa ku am ful la doo nettali yëfi ko waye di mhm. maanaam ku waye di boo koy nettali bu yàggee da waye di ne moom et puis koy jox importance ok ñun ñooñu duñ suñ problème man sama problème dëgg-dëgg mooy état Sénégal mii dialogue mhm. woo xeeti nit ñooñu nga xam ne da naan kii lan la représenté bañ koy woo am na ñoo xamante ne ba Sénégal di Sénégal ba léegi dialogue yëpp nga leen di seen nguur yëpp lañ àndal mhm. parti au pouvoir yëpp lañ àndal seen intérêt yëpp gis naa ci bi ñoo xam ne bu ñuy waxtaanee lu sérieux boo leen fa joxee kàddu sérieux tut ci nit ñi buñ buñu fu ñuy waxtaanee lu sérieux dañ leen war a bàyyi parce que ñoom bu ñu waxee lu sérieux sax du sérieux ci noppi askan wi parce que comédien la gën a nuru mhm. ci wax wax joo xam ne wax ju am fulla la mhm. ak bëgg a daw débat bi comme nag da wax ne ay stratégie lañ mhm. léeg-léeg am na loo xamante bu ñu mënta wax dëgg dañuy wet wetal ay lépp ci côté bi mhm. wala ay cax ci côté bi ak i kàll ci côté bi léegi loolu mooy li nga xam ne moom laa ci jàngate ci fànnam moom mhm. moom mi nga tudd noonu li tax sax ma wax ci mhm. mooy alxuraan rek jiñ wax mu bokk koog man euh, euh, di doomi soxna bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko war a gën a sàmm jàpp naa ne tey ñun ndaw ñi góor góorlu ñoo waroon a jël ay alxuraan yi di ko defee nenn mu woola di la yedd wala mu lay tegaat ci yoon wala mu lay def naka su dul noonu waaye koo xam ne léeg mu gudd ba doo ko mën a tiim ci aaday réew mi léeg mu gàtt ba doo ko mën a burunglu ci ab juddoom ak askan <laughs> waaye léeg muy def jëf joo xam ne foo ko séeni muy wax ci tele génne kàddu yu doyee di yoo xam ne gone gii nab nabi sax ci wàllu jikkoog sàmm ay valeur yi du ko wax <laughs> mhm. fu ñu waxee lu sérieux woo ko defe naa dialogue bee passé waxam ja ba mu jàllee moom lañ doon commentaire dialogue bu bi bi mu jàllee waxam ji ñu ngi koy commentaire léegi loolu mooy lan loolu koy xanaa fàttaloo ñu mhm. yoo xamante ne amul benn njariñ la te li def yaa ko tey moo tax dialogue bi kon kaddu nga xam ne moo fa jib kaddoom googu ràññeeku na fi ndax dafa laal waa daara rek laal alxuraan ñun bu ñu lara da tëb ñun dañoo bari dañuy dem ak émotion mhm. waaye man su ma sañoon dañ koy jël rek banaliser ko te jàll ci li ñu tax a jóg xam ne moom du suñ siibul taxuñoo ña ko woo jox ñu kàddu ñoo ñaa yor li ñëpp bokk muy réew mi ñu daje doon ko waxtaane ku wax feeñ nag la olof di wax ok waaw beneen discours boo xam ne mooy itam ñu bëri taxawaat nañ ci muy euh, ndawu jàngo bi mhm. discours bi ñu bëri rafetlu ko parce que jàpp nañ ne euh, wax na ngir euh, président Macky mu respecté calendrier électoral bi ñu mën a dem élection avant le 2 avril ñoom itam seen discours boobu ban gis-gis nga ci waaw dama koy rafetlu xam nga léeg-léeg sax yooyu laalut wàllu pas-pas foofu itam bu ci julli yi juum ma waxaat ak sama mbokki jullit yi buñ juum ci loolu xamuñu léeg-léeg ngay wax daan na ñoom diw dañoo maandu ñoo ñu gën a maandu ñoom diw ñoo gën a jub ñoom diw noo gën a nàngam léeg ak ëppal ak njuumte am ci loolu mhm. dafa am yoo xam ne ci pénc mi yëfi nit la yëfi la mhm. bu doon tey ci calcul un plus un la rek égal deux yëfi la loolu nag nit da koy jël tudde ko maandu solal ko mbubb kenn ku ne ak mbubb mi nga ko solal dëgg dëgg rek la genn mhm. dëgg rek am ñaari dëgg amut jotaayu keroog ba benn sujet la ñuy laaj wala ñaar yoo xam ne ci lañuy laaj xalaatu nit xalaatu nit ñi ñu koy wax <laughs> askan wi di leen déglu parce que ñoom la ñuy waxal ki wax li gën a jege askan wi boo génnee faaw nit ñi tàccu la doo ko jël taf ko ci ngëm-ngëm yi wala nga taf ko ci mm-hmm. pas-pas yi waaye da nga koy taf ci gisiinu nit ñi ak kiy wax lan la gëm maanaam kiy wax lan mooy lan mooy ay intérêt nit ak jëmm ji voilà lan mooy ay intérêt ak lan moo nekkul ay intérêt ki taxaw ndax président lay gis boo xam da ko war a dekku delloo njukkal di ko sant ka gërëm ndax noonu la noonu la lool la waajal wala ndax dafa war a jàpp ne dafa war a wax fi askan wi toll ñoom dama jàpp ne dañoo wax ci thème bi ok joxe ci seen point de vue ci maanaam voilà ñoom defuñu ko indi ci seen point de vue ak seeni xalaat mhm. yàlla dogal loolee ñu xalaat joxe ko mu dëppoog li askan wi doon xaar loolu mooy li nga xam ne moo ci kii moo tax rafetlu naa ko. waaw waaw la parce que ñaar rek am nit wax ba noppi ñu ne li mu wax d'accord naa ci wala d'accordu ma ci xam nga lan moo bon. Mm-hmm. nit wax ba noppi ñu ne li wax wuru ko woon a wax. dafa am ñoo xam ne nag lañ wax ba noppi dañ naan waruñu ko woon a wax parce que kenn laaju leen ko fii. Mm-hmm. waxuñ fi dara. waaye ki ñëwoon tey ne président man gis naa nga organiser élection yi le 31 janvier. Mm-hmm. dañ naan xalaatam la wax loolu amul problème. parce moom dafa gis ne looloo gën. ki ñëw ne ko tënkul ci yoon tënkul ci luwaa yi nañ ko sàmm nañ ko def nangam nañ ko def nangam nañ ko def nangam dama ne foofu la askan wi tollu tolloolu lañ bëgg man ak yow bu ñu amee jafe-jafe yoo nañuy atte ji man li ma gën a jaaxal mooy am njiitum réew mu mën a toog mhm. ñuy dal ci kaw conseil constitutionnel di ko sikkal nga toog tegale say tànk di leen xool te yow mi toog loi yi la protéger ba man mii ma sañ a wax ba noppi nga jël si ma ne ma danga maa offensé loi yooyu moo sàmm ñee itam ndax ñee ñooy sàmm yooyu léegi yi indi sew-sew yooyu ki ñëw nag wax lu wuuteeg loolu yëkkati ko ba tiim ko wax lu amal njariñ askan wi day doon koo xam ne ay waxam dañ koy saliye bu noppee rafetlu ko ok hmm. ok ñu euh, jàll ci li xam ne moo di amaana dialogue lañ koy mën tuddee wala boo itam